université virtuelle bu Sénégal daal nañu ko soppi tuddee ko université numérique Cheikh Ahmadou Kane nekk ab bindkat bind livre aventure ambiguë université boobu la nag ñu ngi ko duppee bindkat bu mag boobu lee ngir étudiant yi lee daal di jël ci moom référence. Cheikh Ahmadou Kane euh, tour euh, université virtuelle du Sénégal euh, tuddee ko ko université numérique Cheikh Ahmadou Kane ñu rafetlu ko ndaxte Cheikh Ahmadou Kane day nit koo xam ne ñëpp xam nañ ko Sénégal mu nekk écrivain homme politique de renommée internationale. je euh, crois ñëpp xam nañ euh, œuvre am maanaam l' aventure ambiguë que foo ko wax rek ñëpp Sénégal ñëpp xam ngañ ko donc mu nekk nii koo xam ne dafa am ay valeur valeur yooyu nag tey buñ ko joxee buñ jëlee nut ku mel noonu tuddee ko université bi aussi di nekk occasion pour ñun euh, pour que suñuy xale yi jàng ñu nekk aussi ñu utiliser ko comme modèle si seen si seen jàng. coppite université virtuelle bu Sénégal ak charte graphique bu daade yees. ñuy célébrer la femme ñu profite aussi pour dévoiler suñu nouvelle identité parce que xam nga bu fekkee ne tour bi dafa changé donc logo bi dafay changé identité graphique bi day changé ñu profite aussi defaale lancement identité graphique bu bees boobu euh, lancement boobu nag ñu profité tey si journée bi nga xam ne tey mooy journée dédiée o femmes ñu defaale ko benn yoon. Euh, ki fi teewal njabootu Cheikh Hamidou kan moom mu ngi rafetlu. lu ñu duppee université bi lii ci turu waajuram. naa kontaan ak fierté ak euh, jaajëfal président de la république aussi. ci geste bi mu def mu defal ko ñeneen tamit ah, mu defal ko sama papa aussi ñu ko ci euh, remercier bu baax a baax di ko di ñaan yàlla tur bi euh, yàgg sax développé wu ànd ak université bi wax aussi fierté parrain bi ndax li ñu ko associé ak université bu mel nii ndax moom dafa yàgg wax affaire innovation yàgg wax éducation yàgg wax aussi euh, ouverture enracinement ak ouverture loolu daf ko yàgg gëm liggéey ci lu yàgg yàgg yàgg mu nekk presque ci ADN ndax loolu la xam lool la gëm te loolu la yéene suñu dëkk ak Afrique yëpp. ginnaaw ba ñu soppee IVS daal di koy tuddee université numérique Cheikh Hamidou Kane Cheikh Hamidou Kane daal di na bokk ci ñenn ñi nga xamante ni nii dugg nañ ci taarix te seen tur kenn du ko fàtte ba abadan.